koom-koom ku ne xam na ñetti fàcc pàcc la bu njëkk mooy mbéy bu ñaareel mooy industrie ñetteel mooy commerce te ñett yooyu yëpp moom la ministère économie sociale solidaire yore loolu moo waral li ñu xaatim tey mooy seet naka la ñuy lëkkaloo ñun en tant que secteur secondaire ak tertiaire ak yéen li ngeen yore pour mën a am impact ci développement réew mi loolu nag il faut mu gërëm d'abord euh, le docteur euh, Alioune euh, euh, pour euh, li nga xam ne moom la jël initiative bi ak tout son équipement équipe équipe bi mu indaale ak yéen ñi ci liggéey dafa am ñetti impact yi ñu ciy wut bu njëkk d'abord mooy nooy fexe ba Sénégal ñu ñu développé ci wàllu industrie wàllu commerce naka ngay fexe ba li ñu doon jéggaani bitim réew ñu koy fabriquer loolu moo tax on parle endogénéisation de l'économie maanaam li ñuy utiliser ñu koy produire fii te loolu xam nañ li ko mën rek mooy industrie li ko mën le commerce li ko mën les PME loolu moo waral li ñu xaatim tey dañ ko war a seet naka koy mettre en œuvre maintenant loolu moo waral euh, les états généraux de l'industrie et du commerce ñu bëgg ci inviter tous les GIE monsieur le ministre képp ki nga xam ne tey par l'industrie, par le développement solidaire par les PME dañ la ciy invité pour seet d'abord abord naka lañ koy def fii naka la ñuy fexe ba ci suñu juróom-ñetti pôle yi nga les pôles du projet de notre gouvernement ñu mën faa am ay pôle industriel ay agro industriel ay pôles de PME ay pôles commerciaux yu d'ailleurs le 19 et le 20 septembre nous ñëw nii dañ ci événement pour commencer à naka lañ koy defee ndax li ñu signé il faut ñu mettre en œuvre or la meilleure façon de mettre en œuvre c'est nga xam d'abord ban yoon ngay jaar déjà pour financer foo jël xaalis bi naka ngay def ba associé ci ñëpp mooy li ngay naan solidarité bi ak euh, inclusivité bi mais naka ngay def surtout pour mu mën a réussir loolu moo waral euh, monsieur le ministre maa ngi lay gërëm bu baax a baax encore ci initiative bi di ne lii ñun dañ koo gëm dañu gëm ne synergie rek entre les ministères moom moo tax moo mën a tax ñu réussir suñu action bi nekk action bu jafe ndax ku ne xam ne Sénégal fi ñu ko bëgg a jëmee lu ambitieux la waaye loolu incha allah nañ ko def ndax suñu amee ay nit yu mel ni yéen ay nit yu mel ni secrétaire d'État ak suñu collaborateurs yi ku ne xam na ne amul dara lu ñu mën pour ce pays là ñu dugal ko sur une la bonne voie muy la voie de l'économie sociale solidaire la voie de l'industrialisation et la voie du développement commercial loolu moo waral euh, li ma bëggoon maintenant mu ñu taxawal ñaari kuréel kuréel boo xam ne mooy nekk entre le ministère ak samay directeurs généraux ak les directrices générales ak seen ministère nous commençons maintenant à faire un plan d'opérationnalisation. Parce que là, on est dans la conception. Il faut nous faire fait. nous avons organisé. Il y a une façon bilan faire nous xel à mi parcours parce que comme je nañ ko nous nous avons évaluer à à six mois évaluer en un an il y projet que nous avons fait ensemble Nous mais surtout nous loo xam dañ koy def les associer leen Il y a pour nous mën un justement dem na ba financement parce que nous avons bëgg le jafe financier, le lu financier parce que y laaj ay financement innovant ay financement solidaire mais dafa laaj aussi ay financement yu am important ci taxawal ay zones industrielles dans les 45 départements taxawal ay zones agrico agricole taxaw ay zones de commercialisation bref dafa laaj liggéey boo xam ne euh, ça ne fait que commencer waaye li am importance mooy yéene bi li am importance mooy am ñaari équipe ce ministère ak sama ministère qui sont compétents mais a une importance également ñu am le soutien du président de la République Bassirou Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko. Je ngi encourager pour que lii ñu xaatim tey mu nekk un succès.